asalaamualeykum wa rahmatullah noo ngi dellu si di teewlooti war noo weesu wenn waxtu woo xam ne dañuy teewlooti teewlu gu demee nii fa tabaarakallaahu sëñ bi nee na noo ngi sant bu baax a baax baax a baax kilifa yu tedd yii mu leen di tudd di tudd sëriñ bi bi di leen sant gërëm bu baax a baax a baax sant sant suñu di leen sante sëriñ bi. di leen sant suñu borom di leen sant sëriñ bi. di sant ñoom seen bopp cant sant di leen sant ñoom ci seen bopp cant ngërëm lu rëy rëy rëy. lii dëgg la am nañ ci yéene am nañ ci pasteef. nee na lii dëgg la am nañ ci yéene am nañ ci pasteef. alhamdulilah dañ koo fekk ci ñoom. waaye alhamdulilah rabbil alamin dañ koo fekk ci ñoom. nu àndandoo ko. ba jataay mën a am. loolu daal na xel bu baax. loolu fa tabaarakallahu dal na xel bu baax a baax a baax. sëñ bi kenn mënu ko jox ak xam. sëñ bi kenn mënu koo jox ak xam. loolu boo ku seet diggante ak boromam diggante ak yonent bi. ku seet digganteem ak boromam ak digganteem ak yonent bi. xam ne kenn mënu ko jox ak nga xam ne kenn mënu ko jox ak xam. waaye lu lu ko tële tële nag. waaye lu ko tële nag. war nañu jéem. waaye war nañoo jéem. ndax jataay ndax jataay bu mel nii. ndaje mu mel nii. ndaje mu mel nii. teewlu gu demee nii. teewlu demee nii. war ci sëriñ bi. danoo war ci sëriñ bi. ci waxtu bu nekk. ci waxtu bu nekk. dëgg la adduna bari nay gàllankoor. dëgg la adduna bari nay gàllankoor. bari nay gàllankoor lool. bari nay gàllankoor lool. waaye nu fab suñuy waxtu yépp waaye nu fab suñuy waxtu yëpp. jox ko sëriñ bi. jox ko sëriñ bi. di ko di ko di ko di ko sant. di ko sant. cant gu amul ab. cant amul ab. sant ko di diggam ak sant ko diggam ak boromam. sant ko diggam ak yonent bi. sant ko diggam ak yonent bi. sant ko ci bopp diggam ak boppam. sant ko ci diggam ak boppam. sant ko it suñu diggante suñu diggante ak moom. sant ko it suñu diggante ak moom. yooyu cant neexut a boole. yooyu cant neexut a boole. te it moo nu war itam nag. te it moo nu war itam nag. mu sant yàlla bu baax a baax. mu ne nan sant yàlla bu baax a baax a baax. ba nu ba nu suñu borom booleeg sëriñ bi. ba nu suñu borom booleeg sëriñ bi. xiiraat ñu ci moom. xiiraat ñu ci moom. ba nu bëgg ko. ba nu bëgg ko. yemale wuñ koog dara. yemale wuñ koog dara. gëm ko it. gëm ko it. suñu digganteeg suñu borom. suñu digganteeg suñu borom. mu doy nu sëkk. mu doy nu sëkk. biir ak biti. biir ak biti. tey ak ëllëg. tey ak ëllëg. kon sant rek nu war. kon sant rek moo nu war. te jé di ko jéem a nag sant. te di ko jéem a nag sant. jéem a sant gi weesuwul. jéem a sant gi weesuwul. dellu ci moom rek. dellu ci moom rek. nekk nekkal ko nekkal ko rek ci lim bëgg. nekkal ko rek ci lim bëgg. moom boromam rek la bëgg. moom boromam rek la bëgg. yonent bi mu ko digal. bëggul leneen. bëggul leneen. ci loolu rek la nekkoon. ci loolu rek la nekkoon. bañ ko xamee. bañ ko xamee. di ko gis di ko gis. ba biñ ko noppee gis. ba biñ ko noppee gis. kon nag alhamdulilahi rabil alamin kon nag alhamdulilahi rabil alamin Mbacke ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. nee na Mbacke ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax. lii ma wax. lii ma wax. ci sant gu nu war a sax ci sant ko. ci sant gu te sax gu nu war a sax ci sant ko. Eh, dama ko wax rek. nee na daf koo wax rek. waaye noo noo ko bokk. waaye moog yéen a ko bokk. xam naa ne moo nekk ci yéen. te moom xam na ne moo nekk ci yéen. sëriñ bi rek sëriñ bi rek a nekk ci yéen. sëriñ bi rek a nekk ci yéen. loolu nañ sant yàlla bu baax. loolu nañ sant yàlla bu baax. jëmee ko kanam rek. te jëmee ko kanam rek. suñu yitte yëpp. suñu yitte yëpp. nañ ko delloo sëriñ nañ ko delloo sëriñ bi. bu ñu ko defee. bu ñu ko defee. dana noppalu teeg ëllëg. dinañ noppalu teeg ëllëg. dinañ teeg ëllëg. dinañ texe ëllëg. dinañ mucc teeg ëllëg. dinañ mucc teeg ëllëg. defaru tey ëllëg. dinañ defaru tey ëllëg. yëngu yëngu baa ngoog. kon mu ngoog yëngu baa ngoog. lii. nee na lii. dañuy jéem rek baaxantal rek. neen dañuy jéem rek baaxantal rek. waaye dañ ko waroon a def wird. waaye dañ ko waroon a def wird. ndaje mi yëpp. ndaje mi yëpp. dañ ko waroon muy muy benn wird benn wird. dañ ko waroon def muy wenn wird. boo xam ne dañuy am pasteefu. boo xam ne dañuy am pasteefu. bés bu set ñu def ko. bés bu set lu def ko. loolu mooy sunu moo doon moo doon moo yey ci sëriñ bi. loolu moo yey ci sëriñ bi. kon nag ginnaaw mënuñu loolu itam nag. kon ginnaaw mënuñu loolu itam nag. nañ bàyyi xel lu mel nii bu baax baax. nañ bàyyi xel lu mel nii bu baax a baax a baax. delloo ko sunu lépp. delloo ko sunu lépp. delloo lépp. delloo ko lépp. di ko yëngul. di ko yëngul. di ko yëngul ci su su su sunu lépp. di ko yëngul ci sunu lépp. defal defal defal defal ko defal ko ko defal ko ko addiya. Euh, baaxantal ko ak sunu cant ak moom. baaxantal ko ak sunu cant moom. kon nag Mbacke jërë ngeen jëf. kon nag Mbacke jërë ngeen jëf. leen sant bu baax. sëñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax. ak bokki taalibe yi. yi nu bokkal bu baax a baax. Mm. yi nu yi nu bokkal lii bu baax a baax. taxawaay bi ak jataay bi. taxawaay bi ak jataay bi. di leen gërëm sant di leen gërëm bu baax a baax. di leen sant di leen gërëm bu baax a baax a baax. waaw kon nee na mu ngoog rek. di sant suñu kilifa yi nga xam ne moom ñoo ñoo ñoom lañ fi nekkal. di sant suñu kilifa yi nga xam ne ñoom lañ fi nekkal. ñooñu ñooñu ñooñu tàggat. ñooñu tàggat. ñooñu tàggat ci sëriñ bi. tàggat ñu ci sëriñ bi. wan ñu sëriñ bi. wan ñu sëriñ bi. soññu ñu ci sëriñ bi. soññu sëriñ bi. kon ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax a baax. kon ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax baax. di leen gërëm bu baax a baax. di leen gërëm bu baax a baax. di leen di ne noo ngi seen noo ngi seen i tànk. di leen wan ne noo ngi ci seeni tànk. sunu kéem kattan sunu kéem kattan. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. nee na xamuñu lu ñuy wax. nee na xolam dafa sedd guy. yaakaaram dolli ko lool. yaakaaram dolli ko lool. xelam gën a dal lool. jërë ngeen jëf Mbacke. jërë ngeen jëf Mbacke. jërë ngeen jëf mbokki taalibe yëpp. di leen sant leen gërëm. na ñëpp tàllal <laughs> na ñëpp tàllal. yàgg ak rek. nee na yegg sëñ sëñ Fall sëñ fal moom sëñ euh, sëñ Mourtala nee na ko yegg ak yàggal yeggale rek Mbacke waaw. te ñëpp nangu ñaan. amiin amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke amiin Mbacke jërëjëf jërëjëf jërëjëf njabootu sëñ Tuubaa yëpp a ngi lay sant Mbacke donc yëpp a ngi lay sant itam jaamiu yawmal jumu'a maa li wax dixtaaruhu wa jamaa ملكني الجامع يوم الجمعة ما لي وحدي اختاره وجمعه إلي قاد الله يوم الجمعة